leen bu baax a baax ñu topp ci seen yi nga xam ñooy diffusé làmb yaakaar naa làmb jeex na Pokola Baldé la woon gàkku 2 waaye ñang baalo ak Ibou bu Kër Mbaye Fall ñoroon bëre ki nga xam te nag la yàlla may ndam di ñang baalo ñu ngi toog ak moom fas yéene ko nuyu bàkk bu nekk internet yi ndax combat bi naka la ko dundee la moo ne ci kanamam ñang baalo nuyu naa la way ñoo ngi lay fay ginnaaw ban sant yàlla di julli si yonent bi di sant suñu ñaari bu baax a baax xam nga di ñaanal waa Cambérène yàlla def fi jàmm ko waa di ñaanal parcelle 1 ba 26 yàlla fi jàmm yaagu ko waa maa lay fay bu baax a baax di fay ñi nga àndal nii xam nga si di yëpp yi fi nekk nii maa ngi leen di béggee bu baax a baax. wallaahi. <laughs> balaa mooy ñëw ci combat bi rek. début Niang Ballo ci làmb lan la. waaw début Niang Ballo comme ni ko gaa yi gisee rek nu mu dugg see si làmb xam nga ànd ak mafia bi ñu mu doon àndal première combat ba léegi ko waa ñoo ñu lay àndal gars yi xam nga. waaw comme noonu rek. yéen leen style bi filimu Baye Fall wàccee sa bopp. waaw lan la. waaw la boo xam ne yàqu nañu daal. non noonu la ñuy doxee noonu la mel ko waa ñun moom naay si waa Baye Fall maa bi la ñuy doxee xam nga waaw lu mag moom nga jox ko lu raxat xam moom nga jox ko. Mhm. waaw ku wàcc yoon ñu teg la si yoon. loolu mhm. rek la doxee. Mhm. waaw ànd ak suñuy garaan ak xam nga ñoom góo. xam nga yenn gars yi ay soo. waaw noonu rek fu ñu wax jaaral rek fa la jaar. barke alxuraan. olof Ndiaye mu ne ay kuy du ñu bokk mbalka. Hmm. sa diggante ak bëri nekk parcelle lan la. waaw nice rek lépp lu rafet la. gisoo leen tey si làmb ji gaa yëpp teew nañ ay giroo xam nga sama waa ji. Hmm. yàlla na ko yàlla defal jàmm Mbacke Faye. Hmm. xam nga aada booy bawal. xam nga anaconda fii la jógee fii la déparé si convoi bi. xam nga ku lim da ngay juum mbër ñëw nañ fi. lépp nice billaahi. nga diggante ak Talfa. waaw noonu la sama rax la nice barki alxuraanu karim comme noonu rek tal moom gaan dama koy ñaanal jàmm gisoo ko instant xanaa gis naa ko mu yëngal deret bi yëngatu deret bi yëngatu noonu la demee parcelle Cambérène bi la rek mhm. dafa mbër sama waa gis ko xam nga si mhm. mhm, convoi la laa siixal jàmm parcelle am ñi ñaar buñ gisee ñëpp na sax ay sama waay la sama waay la xam nga rek mooy loolu soo nit moom même soo leen miinantewul sax soo leen boo xëyee bërëbu liggéeyukaay rek yàgg yàgg na ngeen di doon ay gaayen mm-hmm. daf ñoo bokk fu ñuy entraîné suba gi ñoo bokk fu ñuy entraîné ngoon gi mm-hmm. waaw man ak moom ak giroo mbàq fay yenn mbër yu bëri mm-hmm. yaakaar naa ñang mbaalo tey combat bi combat confirmation la woon ndax ñëw di daan ñu ne day tataloo nga bëriwaat dóor mu daanu ñu ne mën na xeex tey nga am combat ko xam ne sa nattaangoo la yéen a doole technicité yi na ko tolloo nga waroon waaj bi lan la woon. waaw wàccaay bi comme ni mu doon waajee combat yi yu fi jot a jàll rek. mais bii da si raw ko waaw. bii da si raw lool ndax xam rek booy bu nuy bëreel booy bu ñu doon bëreel Ibo champion la. te nga dafa xam xam yenn kër yu baax yi nii xam nga <laughs> barki alxuraan code yi waaw dafa xam xam code yi quoi mhm. te code yëpp lan décodé nag moo waral lii quoi fii ba suba duma woon nekkul Ibo moo may daan quoi noo ko décodé da nga wóor ay këram lu mu gas nga suul wala la woon waaw ànd ak gars yi rek xam nga <laughs> ànd ak gars yi rek gisi di si sant gaa yëpp képp foo dem rek xam nga mm-hmm. gaa yi ñaanal la di sant ñëpp tamit xam nga ñu ma doon ñaanal mm-hmm. rawatina nag sama benn seex seex Saliou Lo mm-hmm. xam nga waaw borom Touba Baxdaat maa ngi koy ñaanal bu baax a baax baax làmb ji làmbam la woon ko waa sonn na si torop barki alxuraan balaa yoo ñëw ci Ibro rek combat bi tey ni nga ko bëree mën ngeen ci dellu si watal waaw combat bi Ibro du daan si wër ndomb booy fay champion la mais gars yi tiitoon nañ dama Mhm. booy fay dëggantaan waaw booy fay daf may wër ndomb ma siy génn. Hmm? barke Serigne Touba. te ba loolu Ibou ba ma wëree ndomb dafa mel ni dañ doon leetoo sax. ah loolu. Mhm. mais nga bëree la la lu xew. non nekkul booy bi moom may daan si loolu. déedéet Ibou wër ndomba day Cees gars yi ñooy wax penalty la rek ngan di coup franc la ngi fële. <laughs> non wër ndomba gars yi ko bëgg a def penalty rek du penalty. Mhm. loolu coup franc la. ba pare dafa am cinq barrages yu nekk sa kanam. ñu <laughs> dugal bal bi di yomb rek. barrage yu dëgër këj noonu la tey ngay indi saytaane. li géotechnique di wax tey indiwuma jàmm tey ñu ne xuus rek ñang baalo ngay xeex bu saf saaf lan koo mere waaw dama ko mere woon. <laughs> loolu de leer na lu mu la def ñëw lu mu la def. waaw fekk làmb la dañ ko fay fay ma xam ni ma kii da nga ko war a dóor mu daan wala ngeen bëre daan ko ci loolu laa ko mere. mais <laughs> waaw ma dóor dóor daanuwul ah. mu dëgër rek mu dëgër rek moom <laughs> champion la après ñu dem si affaire yi wëre. mu doon ndomb nga fexe ba génn si waaw loolu du Cees wër ndomb bi noonu. billaahi du Cees c'est moom bëtëkat la. moom loolu forum la pour mu wër ci nit ndomb dina yomb torop mm-hmm. Mm-hmm. mais pour mu daan ci ñang baalu moom doonoo du yomb de. waaw nga daan ko ba pare mun ñu bëri ne bettu leen ndax mm-hmm. yow sooy bëri seen xel day dal nga daan ko pare dóor ko la la daam lu fii nag lebal bi fii la xanaa daam loolu lunu la lebaloon non non barki Serigne Touba loolu nag xam ma rek barki bàyyi laay laa la waatal de tayu ma ko loolu nag moom xam naa ne suba moom ndax paa yi ñu ngi doon bind rek <laughs> te yàlla xam na ne tey ma ko ah, loolu moom nga suba lu ma si xaar moom xam ma. comme question mu ñëw dégg maa ngi jégalu si loolu quoi. ñu gis ne bi nga ko daanee ba pare. Mm-hmm. waaw ba pare génn dawaat génn saako yi ñëwaat ci biir. ne fa dama lay rey moom di def geste comme si que da nga ko meree. Mm-hmm. non du règlement de compte xam na ñu ne da ñaanal de da ñaanal moom nga ko mel ñaani. barki alxuraan c'est que ndeysaan. waaw Tita. Eh, gars yi dégg nga de. waaw góor góor xam na lépp. barki yàlla làmb rek xam moom. xam na ni yaramu gars yi dañuy tàng. Mhm. te xam nga rek daan nit danga ko war a yëkkati quoi waxtaan wax dëgg ko waa dama ko waroon yëkkati ni ko mbër làmb nii la waa tey da ngay daan ëllëg ñu daan la mais barki alxuraan tayuma dóor yëfu xale la dóor bi moom tayuma ko ko quoi suñu waxantee dëgg te yàlla tax rek barki alxuraan tayuma ko mhm. billaahi waroon naa ko yëkkat man man sama combat yu ma bëre yëpp bii mooy sama sixième combat sama kombaa yu ma bëre yëpp mhm. ah soo leen seetaanaatee affaire yi nii képp ku ma si daan damay dem lëng la xam ma. Mhm. war ni la ñun ñoo faru ko waa. Mhm. mais bii moom tayuma ko ko mhm. ah. ko déedéet. waaw léegi est-ce nga ni tey mën nañ la indi yeneen yoo xam ne nii après làmb ji. parce que da nga ko dóor te am bàyyi nga xel ne tey xam ne nii après maa génne si làmb ji rek sama ménagère xam ma mi ngi doon dal sama kaw foofu waa aas. ndax man su ma juumul ma ak moom ma bokk ménagère quoi. Mm-hmm. sama ménagère mi ngi doon dal sama kaw naan ma lii waroo ko def ma ne ko mm-hmm. bilaahi tayuma ko. Mm-hmm. ma ne ko tayuma ko après ko waa xam na ne man tayuma ko sax. bilaahi. kon yaa maa ngi jégalu Ibou bu baax a baax a baax a baax ndax moom Baye Fall la. yàlla la ko waa xam nga man maa ngi koy jégalu moom Ibou si boppam. avant maa jégalu CNG moom mooy ndayu mbi ko waa xam moom mooy acteur bi xam nga moom laay yeesuwaat dina ko xam man ak moom yëpp ay baay faal lan ay frère lan amaana sax ay moroom lan kenn kenn kenn magul moroomam man ak moom ay kalaas lan mhm. waaw mbër maa ngi lay jégalu bu baax a baax barki alxuraan billaahi maa ngi lay jégalu bu wér a wér a billaahi wallaahi tayu ko mhm. barki alxuraan tayu ko mën nañu ko comprendre waaw mu ñang xam ne bu bëree mu neex bu tuusee mu neex bu xeexee tamit ñu xam ne kii mbër la. Mm-hmm. mais tey euh, ñu gis ne génn nga ci combat boo xam ne da nga ko bëree ba pare daan. Mm-hmm. tey euh, boo ñu doon wax fan ngay tegaat sa tànk ndax jot na tey nga laale ci mag ñi. Mm-hmm. gis nañ ne nag ñoom baala moom bu muy bëree du yomb day xeex ak yow. ba pare bëree ak yow. te yooyu jot na nag fi mu doon euh, mooy ñu ñoom baala wax ñu. fan ban position lay taxawee ci làmb ji. waaw mais instant yi moom lu may wax xam nga mooy man doog nekkuma fi instant di rafetal kenn journée am quoi. su ma gars yi mënul jox sama journée mm-hmm. bopp ko waa man ñang ndax samay moroom yi fi am 3 combats 4 combats rek ay bëre grand. nga bëre ñëpp ñibbi. waaw bëre ñëpp ñibbi. waa man instant yii nii daa lu ma doon wane ko waa. te gars yi gis noon ko tey tey la confirmation bi tey la woon. Mm-hmm. dootuma fi bëree la kenn ay huitième combat ak ay spécial di rafetal sa journée. Mm-hmm. xam nga xam nga di rafetal sa di rafetal sa journée quoi promoteur bu ma. bu woo sama gars yi ku si mel ni góo ak yenn gars yi nekk si ginnaaw góo xam nga ñoom soo xam nga ku leen si woo su nekkul grand combat du mën a bëreel mhm. ndax instant nii xam nga rek Baye Fall dafa jot quoi dafa jot Baye. kan kan moo nekk sa kanam fu mu nekk nii. waaw ay jamono nag si ginnaaw man danga ma doon tiimale micro rek ni ma ku nekk sa kanam ma wax ko. <laughs> mais instant yii nii xam waaw noonu la demee nag. <laughs> da ngaa yëgal kot bi. <laughs> waaw instant yii moom dañ ciy def code mm. après lu gars yi waxtaanee rek ñu génnee ko géem ko.